waajal euh, kan euh, kañ la ak fan la nga wax ñu exactement aussi lan mooy programme bi. donc programme événement bi mooy sensibilisation sur le port du casque prévention routière bi parce que gis nañ ne y a trop d' mhm. te am na casque yoo xamante ni nii nit ñi dañ koy jënd nga yaakaar ne. dalay dalay dalay protéger. or que ne dalay rey. te danga koy def pour policier bañ la arrêté or que loolu noonu danger la pour yow. donc tey jii dañuy def. sensibilisation sur le port du casque def un point de presse boo xamante ne nii dinañ yéen sax vous êtes invité donc dinañ mën a xamal nit ñi lan mooy suñu objectif ñun suñu objectif mooy fédération objectif numéro un fédération bañ ko ba sax groupe bi objectif fédération lañ ci def maanaam def point de presse fii à la monument de la renaissance ah. ñu ciy ñu ci invité ñëpp ñëpp daje foofu dimanche 13 heures 14 heures bëgg nañ ñëpp dajaloo foofu dimanche bii bii ah? nii 30. d'accord ñu def point de presse bi départ mën a def suñu. surtout maintenant mhm. euh, euh, sensibilisation bi nag dafa am koo xamante ne nii moom lañ ko pare ne muy la jaraaf yu sundoo yi donc li tax ñu ne ko ko moom mooy moom da doon ànd ak ñun di ñu yóbbu foo xamante ne nii peut-être ñun suñu loxo xaju fa pour man ñu may opportunité. ñu mën a wax ak autorité yi nga xamante ne nii. Hmm. ñoo nekk ci nguur ji. moom mën na dawal moto wala jaraaf Youssou Ndour. waaw moom moom moom rider la moom ancien dawalkat la <laughs> day dawal de léegi donc loolu moo tax troisième édition bi ñu pare ne ko jaraaf Youssou Ndour yi donc gis ne yàgg na taxawaay ci taxawaayu deux roues. yàgg na ñu jàppale ñu mhm. delloo ko ci njukkal. am na solo donc loolu moo moo ko sabab donc bu ñu paree aussi. dañuy def suñu itinéraire fi nga xamante ne nii foofu lañu bind préfet pour jaar fa daje jiwaat monument tàggatoo wax suñu prochain li nga xamante ni nii fan lañ jëmaat. préfet accordé na leen ko. accordé nañu autorisation. waaw si.